ba Seydina ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoulaye. Walf Quotidien lam ñu xëyee. tàmbale ko ci candidature majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar kon mu jël seen candidat noonu la ko yéen a kaay ngir Walf Quotidien xëy xëy di amal ab njàngat moo xëy fësal loolu yi Aly Ngouille Ndiaye na dogal kon daal di tekki ndombal tànkam ci gouvernement bu euh, Macky Sall ndax nee na ci tànneef bu ni mel mi mu tuune rek ma ngay woo Amadou Ba ci débat public xam ne ne euh, moom mi eh, di Amadou Ba mën naa sukkandiku ci bilan bi nga xam président Macky Sall def na ko fi eh, ngir eh, mën a amal campagne électorale am leneen tamit loo xam yéen kay gir wàll fa ko tëjee xëy na ko fesal te mooy suuf si nga xam dafa mabbu fële ca mooy fële ca Maroc yéen kay gi ne bëri na ci doomu Maroc yoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan am na sax benn doomu Sénégal noonu la ko yéenekaay gii di Walf Quotidien xëy di 24 dafa xëyee dellu siwaat ci euh, euh, am na ko ci moom waaye laaj bi euh, yéenekaay dafa xëy samp laaj bëgg a xam ndax Amadou Ba mën naa gagné moom mu ngay jël dogal kon daal di tekki ndombal tànkam ci gouvernement bi ne daal dafa seene demal boppam ubbi ay histoire yu bees nañu la ko yéenekaay gii di gii di peuple dafa Ba miñ ne moom fas yéene gii le peuple xëy euh, Ba euh, Mamadou Talla joxe na ci euh, gii di le turbine ci xëtam bu njëkk yéenekaay gii di la turbine tribune xëyee dellu siwaat ci Benno Bokk Yaakaar bi ñu ne bu ñu defu ndànk ci tasaaro la jëm ndax Aly Ngouille Ndiaye tekki na ndombal tànkam ci gouvernement bi ndax nee na àndul ci tànneefu ki nga xam ne ni moom moo di Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo bu ñu deful ndànk dina taxawal ab APR authentique ci jamono jooju leen maam Boy Diaw moom ma ngay euh, fas yéene addu ëllëg noonu la ko yéen kaay gii tribune xëy fësalee leen itamit na ko fësal Abdoulaye te mooy mbir mu euh, euh, ci biir bu dee yéen kaay gii dafa xëyee dellu soir coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne tànn tànn nañ Amadou Ba def ko muy seen candidat ci élection présidentielle yi ñu dëgmal noonu la ko nag kii di Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye démissionné ci poste ministère de l' agriculture Mame Boye moom dana fas yéene àddu ëllëg ngir xool ndax moom dafay des ci coalition Benno Bokk Yaakaar am dafay xàll yoonu boppam noonu la ko yéene kaay gii di Sud Quotidien xëy fësale biir source a ne Abdoulaye Daouda jàlloo wooñe ne ne àndul ci tànneefu ki nga xam moo di président Macky Sall Abdoulaye Daouda Diallo ci euh, maanaam ci Facebook am da cee la ci bind ko message moo nekkoon di jaale doomu aadama yi nga xam ne nii ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci yëngu-yëngu suuf si am fële ca Maroc ci jamono jojilee ay naataangoom ñoom ñu ngay tweeté di Facebook eh, di fësal daal seen ànd jëmale ko ci ki nga xam ne moo di ah, ah, Amadou Ba mu mel ni kon Abdoulaye Daouda Diallo mi bu ñu deful ndànk dana ber yoonu boppam noonu la ko yéenekaay gii di source a xëy fësale yéenekaay bi di critique gii di critique ne eh, moom Amadou Ba téeméer ak juróom-benn fukki fan ak juróom-ñeent moo ko desee ngir mu mën a convaincre électorat bi la noonu la ko yéene kay gi xëy fësale ndax juróomi weer yu teg fukki fan ak juróom benn moo des ñu sóobu ci élection présidentielle yi di ñëw ndax Amadou Ba nag dina fexe ba loolu nga xam daanaka ab gàpp la ci moom mu daal di koy matal noonu la ko yéene gi di critique xëy fësale enquête lam ñu enquête yéene kay gi di l'enquête xëy dellu soit ci Amadou Ba mi ñu tàbb def ko mu doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar euh, Macky Sall nag ma ngay dellu soit ci mu tànn Amadou Euh, yéen kaay gi nag ne mbir yi metti woon na lool waaye fu mu toll ni Amadou Ba kon moom la tànn ci loolu la def ko mu doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar euh, Dakar euh, dox ci digganteem ak moom Robert ma nga xam Ba daal tànneef gu gën la ci Sénégal ndax moom daal gis na ne moom Amadou bi bu fekkente ne daanaka président de la République Sénégal daanaka daal président bu baax lay doon ci réew mi noonu la ko yéen kaay gi di Dakar Times xëyee fësal